surtout li li ma li ma yewoo mooy euh, j'avais envie de parler du cumul des mandats mm. mandats yi ana lu tax ñuy cumuler mandats yi ci réew mi surtout que ceux qui étaient dans l'opposition et mm. qui sont aujourd'hui euh, nekk ci ay positions yoo xam ne position de cumul lañu juste quelques semaines avant quelques mm. mois avant ñu ngi doon wax ci lu bari par rapport à ce cumul là waxoon nañ sax ñoom il faut ñu joxe exemple bés bu ñu dellu see euh, ci nguur gi donc ce qui est justement un petit peu que am na benn pàcc nguur boo xam ne am nañ ko ñoom ñoo nekk euh, ci ci ci ci ci opposition bi. Euh, te ñoom ñoo waroon commencer d'abord par joxe exemple pour am benn effet déclencheur. par rapport a justement euh, li nga xam ne dafa xew ci réew mi bari fi Thierno et te te te ñu war koy di ko coow muy taaru Sénégal concernant principalement ce cumul là. Mhm. ana ana lu war a mën a tax ci réew mi boo nekkee dans l'opposition ngay wax lu nekk ci loo xam ne ay baax baax la par rapport ak intérêt réew mi et que boo ñëwee ci biir nguur gi wala nga am benn pàccum nguur eh nga bëgg def autrement wala nga bëgg nelaw ci yi nga daan wax quel véritablement le problème pourquoi sénégalais yi bu ñu nekkee ci réew ci euh, euh, euh, opposition di politique bu ñu ñëwee ba taxaw war a wax wala jëfee ñu daan wax wala def en sorte que seen seen wax mën a euh, méngoo ak seen jëf pourquoi duñu ko def mhm. Thierno Bocoum <laughs> alors euh, Aliou lay nuyu aussi di am mbégte loolu jàkkaarloo ak yow xam nga d'abord damay préciser ne chaque fois ñu bëri duñ ko duñ ko faral di wax mhm. mais dès l'instant que ñu fal la mhm. danga doon koo xamante ne ne dañ lay jox ay prérogatives da nekk ci nguur xam nga parfois dañuy naan kii maire la. waaye opposition la nekk ma ne no il a le pouvoir local. maire ba sooy dem ci commune ba. moom moo fay nguur ba. moo fa nekk pouvoir local. donc kooku da nga ko war a apprécier par rapport ak liggéeyam. et liggéeyam soo koy apprécier da ngay tenir compte ay promesse am. li mu waxoon ak lan la def. su dee député la. am na aussi ay prérogatives yi nga constitution soo waxee du président de la république mhm. da ngay wax aussi de l'assemblée nationale Absolument. député ak président mhm. dañ leen a fal aussi suffrage universel direct kooku tamit suñ ko falee mhm. dafa am ay prérogatives yoo xam ne danga koy apprécier comme nu ngay apprécier président parce que dafa nekk aussi si nguur waaye soo koy apprécier aussi da nga koy apprécier par rapport ak kàddoom yu mu waxoon avant ñu koy fal ak lu mu jëfee bañ ko falee donc foofu opposition ak pouvoir amatu fa foofu da ngay xool kan moo wax ak kan moo ñàkk jëf mhm. donc da ngay évaluer sur le cumul de mandat j'admets que am na ñoo xamante ne peut-être d'accord ñu si am na ñoo xam ne daa nee nañ ñun pour ñoom cumul war na mun a am je pense que ñooñu mun nañ ko exprimer am na ñu bëri ñoo xamante ne tamit d'accord ñu si am na ñu ko exprimer woon aussi avant man gisuma dama bokk si ñu jàpp ne amul benn sens cumul de war a am absolument amul benn sens mhm. dafay dévoyer d'ailleurs totalement la moo war a mën a tax ñuy fal nit mhm. gis nga élection yi passé dañu def ce qu'on appelle le suffrage direct ci élection locale yi bu njëkk ba conseil yi ñooy toog fal seeni maire mhm. léegi ñu ne maire ba la ñuy fal directement loolu yëpp dafay yokk responsabilité bu mu war a am ñu identifier ko à l'avance absolument ne ko yow comme identifier nañ la à l'avance wax ñu fan nga jëmee suñu commune nan nga ñu bëgg a yoree nga wax ko préciser ko nit ñi fal la sur la base de ça. kooku su à part nelaw ak lekk les besoins yu nit di war a mën a am. tout à fait lu muy mënti def war na concentrer aussi commune am defar commune am. absolument. Mm-hmm. parce que mbën rek fii communes yi ay problème kese kese kese mm-hmm. kese la. Mm-hmm. chaque jour soo yeewoo war nga tal lu ne lu dul. Euh, nekk ci sa commune. Mhm. kooku mënoo ta mënoo ko boole ak leneen. Mhm. parce que su dee dañ la fal nga nekk maire. nga am tout ton temps pour ça. député bi tamit dañ ko ne yow léegi yow même sooy liggéey même yenn liggéey si nga nekk directeur de société dañ la naan c'est incompatible. Mhm. nga nekk actionnaire majoritaire ñu ne la non non c'est incompatible. nga ne nekk leneen leneen xam nga li tax. parce que dañ la ne ne consacré wul ci sa mission. totalement tout à fait. mais même su dee yow da nga see nar ñàkk alal ñun dinañ la fay askan bi mm-hmm. Mm-hmm. jox la salaire bu duun jox la oto jox la essence mm-hmm. jox la lépp lu war pour nga liggéeyal mais est-ce que du xëccoo privilège ak yokk askan wi benn instant parce que un maire bëgg nekk un maire bëgg nekk député bëgg nekk PCA est-ce loolu du insulter les sénégalais mën ni ñoom ñenn ñi rek ñoo am euh, xam-xam pour mën a diriger nangam mais est-ce que du xëccoo aussi ay privilège non xam nga wax léegi cest que pour man sax du de vue redevabilité boo war a am par rapport ak askan wi. Mhm. munoo am don de duplicité. ok si terme en terme de de fonction. Mhm. munoo nekk maire. en même temps nga nekk fële ci député ba il faut mhm. nga benn bu bu bu bu xaw a bu bu yanq maanaam il faut mu am bëñ bu yanq si bëñ yi du bëñ yëpp mënuñoo dëgër bëñ bu yanq boobu nag warul yanq absolument parce que suñ jëlee cinq députés sur 17 millions de sénégalais la. Mhm. c'est la démocratie représentative. Mhm. député bu ne dafa war a jouer rôle am convenablement ba mu jeex. Mhm. su dee dañu la jël en tant que maire. par rapport a population bi yëpp la. donc yow da nga war a jouer totalement ton rôle. donc pour man cumul de mandat moom waruñu ko def ci réew mi. surtout le mandat électif warul nekk. man loolu laa loolu laa loolu laa gëm. maintenant euh, ñu ñu wax promesse ne dañ koy war a dindi. il faut pas que ñu koy raay raayal. Mm-hmm. bu ñu ko raay raayal. Mm-hmm. parce que munoo wax ne euh, xam nga lu situation bu ñu indi fii si réew mi. Mm-hmm. en réalité ñàkk joxe kàddu. sàmm sa kàddu moo ñu indil problème yi yëpp. moo tax parfois damay wax ci problème mu valeur ak éthique ñu ne ma parfois yi am na yi ngay wax dafa mel ni est-ce que euh, non moo gën a am solo si réew. parce mooy tax nga mën su dee da nga am alal nga mën ko sàmm. Mhm. su dee da nga am constitution nga mën ko téye. absolument président de la république ba mu ñëwee ne cinq ans laay def. Mhm. ñëw def sept ans boobu la mbir yi commencé am problème. Mhm. parce que deux ans yi si des yëpp gis nañ lu mu si lijjanti ba kii du nekk élect du dem candidat kii du kooku génn na complètement si parole boo xam ne jox na ko population yi mais loolu su dee moom nga gis ba mu indi conséquences yi yëpp nga gis ko si pouvoir bi waroo ko tolérer benn yoon si opposition bi <coughs> waroo ko waroo ko sax négocier rupture bi ñuy wax kon c'est de l'illusion du am na non j'espère que en tout cas képp koo xamante ne ne wax nga ne ne waroo def cumul de mandat mm-hmm. nga ñëw def cumul de mandat kooku ñu am respect ci yow. Mhm. mënatuñu am en réalité espoir que ne suba di nga mën a def lu gën pour mhm. askan bi. Mhm. c'est aussi simple que ça. man lu ma la bëgg laaj ci foofu. est-ce que du ay raisons politique moom moo indi loolu. parce que euh, euh, da ngay gis par exemple kenn calcul politique mu ne non na Bocoum moo ma nekkal Dakar <clears throat> yow député nga. léegi ba Siaga. kii bi euh, maanaam euh, kii bi ñëw woo la ba saa ne la xaaral ma ñambaasal la ci lan pour nga am maanaam pour nga am moyen. pour mun a xeex politique. absolument xam nga est-ce que du loolu tamit moom moo indi loolu. mais loolu loolu mënul jël la dessus. mënu ko jël d'accord naa sur les promesses. yi waaw dama ne est que du loolu moo ko def nii Sénégal. c'est c'est possible exactement cest à loolu kees mën naa parfois cupidité la sax. Mm-hmm. Euh, waxuma nag am na ñoo xam ne ne wax nañ ne d'accord ñu dañoo war a def cumul ñooñu xam nga aussi mënoo leen reprocher. Mhm. ñu def cumul parce que nee nañ dañoo ñoom d'accord nañ. Pastef l'avait dit par exemple. waaw non ñu ñu wax ne parce que foog naa dañ ne. cumul d'accord ñu cumul. voilà mais am na ñoo xam ne peut-être nee nañ d'accord nañu cumul. Mhm. mais su dee da nga ne d'accorduma si lii lii nii laa ko bëgg defee nga dem parce que je dis toujours c'est chose de faire des promesses ça mhm. n'est une autre de les respecter. c'est une chose nga ne man kenn mënu maa corrompre saa ne une autre ñu tegal la ay millions. Mm-hmm. mais est-ce que est-ce boobu cumul boobu. bokkul wax. Mm-hmm. est-ce que engagé au niveau de Yewwi parce que lu Yewwi di dogal Pastef ci biir Yewwi la bokk mais bu fekkee waa Pastef d'accord nañ ne ñoom du ñu def cumul de mandat. Mm-hmm. fekkoon ñoom ñoo demal seen bopp assemblée nationale boobu est mën nañ dal carrément mais bu fekkee ne biir Yewwi la. ñu ñoom ñoom seen bopp am nañ seen ah, seen lu ñu lu ñu taggal seen bopp est-ce que engagé na ñi nekk ci biir Pastef ne duñ ko def. non man man nag man nag Mass il faut nga xam ne je suis un acteur politique je suis pas un chroniqueur je pas un observateur ah, je pas un analyste. Ah, non non ak mbirum Yewwi da koy laaj waa Pastef ak waa Yewwi. sa biir wax la la tontu. parce que sa biir wax yow yaa ko wax. maa wax la yaa ne am na ñoo xamante ne dañu promettoon bi ñu ñëwee ko. to dama ne képp ku promettre. voilà képp ku promettre. ça sous-entend que ñoom. ñoo waxoon ne non sous-entend amu si je suis képp ku promettre. ne su ma ñëwee damay def du ma def cumul de mandat. Mm-hmm. nga ñëw def cumul de mandat. Mm-hmm. muy kenn waratul am espoir ne suba di nga mën a changer quoi que ce soit. merci aussi simple que ça est-ce que bokk ci coalition aussi war na mën a tax say conviction nga jël tege ko ci ginnaaw. c'est sûr parce que da nga nekk ci coalition. loolu aussi war nañ ci def taxaw seetlu Aliou Sow dem ci beneen point. loolu sax day wane ni day wane ni euh, coalition yi en général. Euh, du ay coalition yoo xam ne dafa basé wu ci ay ci ci ci dëgg. Euh, du en général ay coalition électorale la juste pour faire tomber l'adversaire mm. après on verra la suite. Euh, mais amuñu benn projet Euh, en tout cas ay axe programmatique yu leen di permettre ñoom ñu ne ñun ci lii la ñu bëgg a liggéey mhm. ok dañu bëgg kii nekk fii jóge fi waaye bi fi jógee ñun lii la ñu bëgg a def à sa place mhm. non loolu taxu leen jóg mhm. leen intéressé mooy fexe ba diw wala wala wala ay nit ñu jóge fi ñu nekk ñoom ñu jël toog seen place euh, dama dégg benn kilifa di ma wax di ma wax ma non ma affaire u benn euh, grand sociologue dans ce pays mu ne ma Alioune affaire bi affaire du dara lu dul affaire yi puusal ma toog yaa ngi dégg j'ai j'ai bien retenu ça parce que effectivement c'est exactement cela ils sont là juste pour se remplacer et puis di alterner entre ñoom pendant 10 pendant 15 pendant 20 et puis 50 ans depuis tout le temps ça a été pareil mm. mais en général Sénégalais toujours vivent toujours la même chose xam nga euh, Salma mm. tey jii nii euh, ci 30 secondes ci cumul bi euh, parce que gis nga man dama gis ni mm. am na ñoo xam ne ci cumul bi empêché na par exemple quelqu'un comme Thierno Bocoum mu mu nekk mu nekk assemblée nationale am na lu ñu doon defaree réew mi d'une certaine manière. Mm. Euh, moo tax euh, il faut ñu ñëw ci après ci euh, type de scrutin bi ni ñuy falee député yi biir assemblée nationale. moi je pense que ni loolu il faut absolument que ñu changé ko parce que ni mu demee ni baaxul parce que tey jii nii Thierno Bocoum chef de parti la bu ko neexee. Mm-hmm. immédiatement Cheikh Diagne Gaye bi nga xam ne ci parti bi la nekk ko teg ci benn position boo xam ne. ala kulial dafay nekk député bu ko yàlla reyul mhm. et ça ce n'est pas normal donc type de scrim façon bi ñuy falee député yi mhm. il faut que absolument ñu changer ko maanaam et puis j'aimerais bien qu'on en parle mhm. parce que waxu kimil bi mënuñu si mënuñu si jóge parce que dafa gudd yaa trente six mille choses à faire mais est-ce que euh, Thierno Bocoum xalaat nga ni euh, assemblée nationale man j'avais une idée je ne sais pas ce que vous en pensez mooy au Sénégal dama Euh, bu ñu changé woon euh, façon ngi voté ngi voté ngi député est-ce que xalaatoon ni comme 165 députés la ñu soxla Sénégal waruñu mën a def en sorte que 165 euh, députés yi gën a représentatif par rapport ak l'étendue du territoire national maanaam ñu jël 165 Sénégal ñu def ko 165 circonscription électorale maanaam ay pàcc maanaam Sénégal mooy taabal ji ñu ne béréb bu nekk maanaam par exemple localité bu nekk localité nekk ñu ne ñu xool ñaata député ñoo foore génn wala wala par exemple sax ci ay département ñu ne léegi Kër Massar cinq députés ñoo fi gën ci biir Kër Massar par exemple dañuy diviser Kër Massar en cinq circonscriptions électorales léegi moom un système à deux tours ba nga xam ne système à deux tours dans le sens que ni bu fekkee ni élection am na euh, ki jël P ci circonscription boobu avec plus de cinquante pour cent deuxième tour du am ci circonscription électorale boobu ki xam ne nag ji amul plus de cinquante cent ñu def deuxième tour ci biir circonscription boobu ku jiitu moment boobu yow yaay gagné yaay nekk député circonscription boobu. pour mm. représenter euh, gox bi ci assemblée nationale. léegi maintenant ci euh, euh, par exemple Kër Massar mun na am selon la densité proportionnellement à la densité de la population mun nañu ne Kër Massar par exemple bi ñu defee seen calcul yi yi ñooy xool ak mm. démographie ñu ne léegi Kër Massar gis nañu bari na nit trop léegi. 4 mm. députés moo fa a génn. ñu ne Géejawaay Kër Massar moo ko kon Géejawaay 3 ñu xeex ci seen biir nga xam ne képp koo xam ne maas moom mun a yow suba tel mu deman dama bëgg a nekk euh, géejuwaay laa dëgg dama bëgg a nekk circonscription ndangam laa commune ndangam laa dëgg euh, commune ndangam Mm-hmm. commune nangam laa dëkk ci mm-hmm. commune boobu circonscription électorale sangam la man dama fa bëgg bokk pour nekk candidat mm-hmm. bu demee bu ko falee <coughs> mais Mass Mboup la ñu votel la fal bu demee assemblée nationale il sera beaucoup plus libre il ne sera plus le député du président de la république wala député de son leader mais il sera venu là tout simplement parce que gox bi moo ko fal il aura beaucoup plus de liberté waaye léegi nii euh, ku mu neex eh, euh, Thierno euh, na ñoo xam ne tax absolument am parce que Macky Sall moo tax am euh, euh, donc yooyu est-ce que waru fi jeex parce que finalement Abdoulaye Wade bu nekkoon député député Benno député je suis le député de mon leader finalement comme l'autre est le député du président Macky mm-hmm. qui est leur leader à la base avant muy nekk président donc mm-hmm. yooyu est-ce que duñ ko changer ci réew pour gën a yokk doole démocratie bi gën am une liberté euh, au niveau sur le plan expressif si je bëgg a wax dara mais ngay sóoraale sa leader wala ngay teg benn deal boo xam ne ci biir assemblée wala façon vote bi ngay voté mm-hmm. da ngay par rapport aux intérêts de ton leader mm-hmm. a un avenir à préserver politiquement donc yooyu est-ce que duñ ci bàyyi xel Thierno Bocoum mm-hmm. non loolu effectivement pré préoccupation la boo xam ne je pense que ñu bëri partagé nañ ko si nan la ñan ñoo ñuy teewal ak façon bu ñuy teewalee parce que euh, ñu nekk biir assemblée nationale moom laa wax sànq démocratie représentative lu muy tekki mooy sénégalais yëpp nga jël leen dugal leen fenn ñuy ñuy jël ay décision mënul nekk mhm. comme mënul nekk dafa am ñu leen di représenter absolument mais xam nga constitution dafa ne parti politique yi ak coalition yi ñoom ñooy concourir au suffrage mhm. loolu euh, soo gisee parti taxaw rek toujours day am njiit soo gisee coalition taxaw toujours day am ñu koy mëne ñu koy diriger te si biir coalition day am ay parti yu nekk si biir te parti yooyu ñoom ñooy proposer dans le cadre de la coalition donc foo ko wiiree rek toujours parti ba euh, ku jiite parti ba dafay am euh, option ci choix yi. Hmm. toujours dafay day mën a moom di choisir pour pour ñuy mën a ñu koy mën a teewal. mais effectivement il y a il y a tendance aujourd'hui de plus en plus boo xamante ne ñi ñu ngi siy réfléchir en réalité on a besoin que ça soit beaucoup plus inclusif xam nga mbirum raw gàddu bu am ci réew mi moo gën a garaaw encore. Hmm. quand tu prends un département bon c'est vrai que nu ñu defee système majoritaire ak système proportionnel bi département bu ne am na lu mu am compte du poids électoral et tout ça sur les sur les 46 départements mmh. ensuite dafa am scrutin proportionnel national bi nga xamante ne ne mënoo ko dàq parce que dafay tax ba ñoo xamante ne ne peut-être amuñu représentativité yu mag fi yenn département yi suñu foree fii for fii for fii peut-être mun nañ am député comme député yu yu yu dugg comme Aar Sénégal comme euh, les serviteurs euh, mm-hmm. et cetera euh, bokk gis-gis et cetera et en général sooy xool sax les non inscrits toujours ñoom ñooy toj assemblée yi ñoom ñooy ñooy ñu ñoo xam ne bokkuñu ci benn groupe. Mm-hmm. sooy xool assemblée yu fi jàll yépp ñoom ñooy gën a fës. Mm-hmm. ñoom ñooy gën a feeñ. loolu dafay tekki ne ne parfois du pas forcément comme ni nga ko waxee Aliou ñi ñuy tànn di leen dugal pour ñu nekk député ñoo ñooy def liggéey bi mais ñoo xamante ne dañuy ñefee neneen ñoo ñoo ñoo ñooy def en réalité liggéey bi mm. maintenant raw gàddu boobu di am loolu lañu war a changer tey mënoo dem dans un département nga am par exemple 10 10 laa ma joxee ko noonu mm-hmm. ku topp si yow am 9 keneen ku si topp am euh, je sais pas sept par exemple. Mhm. mais soo ko boolee ñoom quinze la am. kay ah, wala seize. waaw yow nga am neuf yow nga am dix. yow yaay yaay jël lépp yaay jël lépp. yaay jël lépp voilà. alors suñ ko defoon système proportionnel. Mhm. Euh, def ko quotient électoral su boobaa yow mun soo moytul benn bi ngay jël ku si topp jël benn. wala wala su dee ñaar ngay jël keneen ki jël ba maanaam ñëpp doo ko amandoo. donc ce qui fait que aujourd'hui ñoom dañuy le plus souvent ñi ngay tànn foofu bés boo rawee benn voie rek da ngay jël lépp yóbbu. mais loolu la ñu war a changer complètement parce que loolu ce n'est pas démarché démarche inclusive du du du wone diversité bu war a am ci benn kii xam nga sànq soo jëlee benn département da nga koy pàcc ay communes et tout ça de la même manière. pensée yi nga xamante ne am na diversifié wu à travers les coalitions ñu firndeel ko ci candidat yu am soo mënee jël fii candidat war nga mën a jël fee candidat mën na indi benn diversité au sein de l'Assemblée nationale dina tax yow soo yi taxaw ci yéen ñaare fi taxawal Linguère kii su waxee lii pour parce que dafay jàppale président kële dina wax leneen parce que gis na difficulté waa Linguère yi war na leen taxaw mm-hmm. mais le plus souvent la grande masse dañuy dugg ci benn carcan avant ñuy ñëw suñu ñëwee dañuy nekk député diw wala député bii clan wala député bii lii en général sax ñuy tirer les ficelles en réalité sooy xool ba xool dañuy nekk seen kër di yónnee ay messages mm-hmm. wala di téléphoner ñoom ñooy tirer les ficelles parce que ce sont les leaders mm-hmm. alors que le député dafa war a am taxawaay bat fu may jeexalee si loolu mooy am na nañu nekk ci ginnaaw assemblée ci ci député ah oui euh, di coordonner bien sûr di coordonner c'est des logiques de coalition mm-hmm. c'est des logiques de coalition je pense que am na am na kenn ku doon expliquer bu ne xaw ma ba mu expliquer wax ak président groupe parlementaire bu euh, euh, Benno Bokk Yaakaar maître Youm nee na ko bind naa message président xam naa dina ma tontu am na ku ko wax démb je pense mm-hmm. président mu ngi gérer actuellement lu xew aussi. Mhm. parti yam de la même manière du ñàkk. est loolu biir coalition parce que vraiment loolu mooy problème bi président bi nekk États-Unis tey jii député yi war a doxal li ñu war a doxal mais ils sont obligés di message président la République bi nekk États-Unis mais di ko message pour moom moom mu jëlee décision ci ci ci ci commission yi. mais parce que député président la du député peuple aussi. Ah, il faut il reconnaître. xam lañ lañu nekk mais ci loolu la kii di wax. xam nga ñu député président kese sax nekk nañ sama député leader bi aussi. sa leader. absolument mais euh, ni président bi mën joxe ay ordre nekk foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. noonu la leader de l' opposition bi. opposition bi di joxe man je pense que ni moi je pense que ni takkuwuma euh, trop trop ak ou alors il faut ñu am lu ñu ci yokk. Mm-hmm. Euh, parce que gis nga bu ñu defoon circonscription est ce Mass Mboup am na droit moom ci goxam. mu dem représenter goxam assemblée mënul nekk parce que il faut mu nekk ci parti politique loolu la wax te loolu man moo tax ma am problème ak institution ci institution réew mi mhm. parce que déjà loolu mhm. il faut ñu lijjanti ko parce que man war mën a jox man ci benn sa benn pàcc fi ma dëkk ca Géejawaay par exemple ma ne ma ne man dama bëgg nekk nekk député gox boobu mhm. pour mën a dem défendre intérêt Géejawaay euh, ci biir assemblée nationale waaw loolu man du ko mën a def parce que tout simplement Euh, gox yi luy jóge nga xam ne foofu lay gën a yombee sax ndax yow daf lay wóor ni askan bii moo la war bu fekkee dafa am système à deux tours te kenn amul plus de pour cent dire que yow mun ngeen négocier sax mun nga négocier sax ak sa ex adversaire mm. pour moom groupe am boobu votel la deuxième tour pour nga dem assemblée nationale comme ni ñu koy defee ak président de la république nga xam ne ci biir gox bi ça passe à l'intérieur euh, de de cette circonscription pour mu pour mu am pour mu am 50 pour cent après ci deuxième tour bi nga xam ne bu demee am na ñu ko jàppale. noonu mhm. grave non non loolu loolu loolu la mais dama lay préciser ne ah, ante indépendante mun na dem coalition. du seulement parti cest à que euh, parti mën na dem coalition électorale mën na dem ante indépendante mun na dem. Mhm. c'est-à-dire que nit mun na toog ne man dama bëgg a nekk député. defar li war def caution am def lépp lu war pour mën a nekk député. Mhm. mais li nga expliquer je pense que c'est une c'est une très bonne idée aussi mhm. c'est-à-dire que le fait ñu ñu ñu fexe ba. ñu war a doon député compété ñu sentir ne ñii suñu demee dañuy teewal seeni askan. Mhm. ñu nekk ci compétition mu jaral leen ñu def euh, élection seen biir et cetera. ba dem assemblée nationale. mais loolu yëpp dafay gën a construire dafay gën a tax ci tànneef bi ñu am ay député yu représenté. président assemblée nationale bi président assemblée nationale kan moo ko tànn. président Macky Sall moo ko tànn. waaw mais comme comme président euh, groupe groupe libéral Yewwi Askan Wi. ki ko tànn xam nañ ko aussi c'est pas c'est pas non mais ah, Aliou Sow xam nga aussi li may wax mooy. déedéet man mais may ma ñëw s'il vous plaît ah. xam nga lu tax man dama jàpp gis nga li tax ma wax loolu séparation des pouvoirs moo tax may wax parce que assemblée nationale war nañu am seen liberté bopp comme ni ko justice bi war a amee comme ni ko pouvoir exécutif bi amee. Mm-hmm. mais boo gisee ma ñëw foofu c' est parce que gis nañu la cas Mimi Touré moo tax ma moo tax ma dugal question boobu. parce que Ali gis nga keroog Mimi Touré ci biir assemblée nationale ci la yëg ne moom. ak li mu mm-hmm. campagnal Macky Sall yëpp conn ci sol tay fu ne mu dugg fa. Mm-hmm. mais ci biir assemblée nationale dernière minute ci la Mimi Touré yëg ne du moom. Mm-hmm. est-ce que comprendre nga ça veut dire que tey li nga wax laay dëggal ñiy tirer les ficelles tey jii mm-hmm. nekkuñ biir assemblée national mm-hmm. ñu ngi seen kër toog d'accord moo tax ma ne ko kan moo tàbb président assemblée nationale bi kan moo ko tàbb c'est question bu euh, euh, nga ma may euh, benn question parce que damay bañ kii bi politique bi jeex te loolu Thierno Bocoum du toog fii te duma ko ko laaj man loolu bu moo ko laaj ma am jàmm damay ñëw ci Aar Sénégal coalition boobu ngeen demee mais c'est quoi le problème Mm-hmm. parce que ci coalition boobu mm-hmm. dama ci gis ay ay nit yoo xam ne mm-hmm. kàngam ay kàngam ay nit yoo xam ne sincèrement bi bi ngeen defee seen coalition bi avant kii bi dama doon dégg waxtaan bi naan non ñii ñii fi nekk ay maanaam ay voilà borom xam-xam ne xam nañu réew te am nañu fulla am nañu fayda mais clic benn député et puis plus forest voilà mais lan la xanaa problème de marketing la xaw ma problème de xaw ma ci yéen la. est-ce que def ngeen seen ndëpp <laughs> yéen seen ndëpp def ngeen ko. non def nañ def nañ suñu ndëpp xam nga euh, d'ailleurs xam nga élection moom dernier moo bi mu ngi revenir aux population ñun dafa am lu ñu waroon lu ñu waroon je pense que def nañ ko. parce que ba ñuy dem élection Gomis ñun xamoon nañ ne parce que nag du ñu ay ne en politique. Mm. xamoon nañ ne il une dualité bu commencé depuis les muy la dualité Yewwi Benno Bokk Yaakaar mhm. dualité boobu jur na ay situation inédite inédite mhm. inédite maanaam am na gox yoo xam ne fal nañu ay maire yoo xam ne kenn xamu leen mhm. loolu lu muy tekki mooy population yi dem nañ ba toll benn niveau boo xam ne enjeu national bi la ñuy gën a gis que yeneen enjeu yi maanaam président Macky Sall na fi jugee troisième mandat waru fi am absolument ainsi de suite ainsi de suite dem nañ ba toll benn moment jàpp nañ na le vote moom mooy artu président Macky Sall si yenn yi moo tax xoolatuñu vote boobu conséquence immédiate bu muy am soit si localité ba wala si assemblée nationale ba mhm. lu ñu gën a xool mooy dina wàññi pouvoir ki fi nekk te effectivement c'est le cas parce que je dis élection législative yi président Macky Sall su ko waree jàngat war na xam ne un président de la République la première arme bu ñu lay jox suñ la fale mooy jox la une majorité confortable à l'Assemblée nationale mmh. Mmh. bés bu ñu la ko retirer ça veut dire que yow sa bopp la ñu sanctionné mais sanctionné wuñu sa député yi parce que mmh. député yi tànn ñi ñu xam nañ ko donc ñun Gomis xamoon nañ ne tendance boobu lu ko wëlbati du yomb. du yomb absolument. nit ñi duñu xool parce que doo benn sénégalais du ne. Mhm. Euh, ñii nekk aar Sénégal ñu askan bi. Mhm. Euh, seen parcours baaxul amuñu xam-xam. Mhm. amuñu programme duñ ko wax kenn du ko wax. mais enjeu bi ci balance bi bu ñu am ñun par rapport à notre profil. posé wul trop ci balance bi ba mën a wàcce balance bi. ba ñu mën a fàtte enjeu national bi nga xam ne moom la ñu commencé doxale depuis le début. mooy mooy mooy leen ñëw leen ñëw leen renforcer position bi. ma daaneel foofu rek waaw loolu maa ngi siy ñëw ma daaneel foofu rek. <laughs> moo tax moo tax ñun suñu suñu point de vue moo nekkoon bon ñun opposition bi la ñu bokk loolu parenthèse la. <laughs> cest à que opposition. ay opposition moo am opposition ou bien opposition. non mais loolu dinaa si ñëw yow Mass da ngay cokkaas sànq ba tey <laughs> cokkaas bi di nga ma di nga ma laal alors. Mm-hmm. Euh, donc. c'est-à-dire que li ñu war a xam mooy ñun notre mission suñu volonté moo nekkoon renverser la tendance. Mhm. mooy élection législative lañ jëm. Mhm. mbirum coow troisième mandat c'est devant nous dinañ ko régler le moment venu waaye élection législative yi dafa laaj ñu yóbbu fa ay député yoo xamante ne dinañ mën a changer xar kanamu assemblée nationale. fii lañu fekk assemble nationale. fii lañ koy yóbbu loolu la ñuy wax contrat de législature mhm. ñu bind suñu contrat de législature présenté ko pour sénégalais yi xam ne assemblée li am solo mooy lan nga fay yóbbu ak lan nga fa war a changer mhm. ensuite ñu ne leen pour changement am parce que ñëpp mën nañ def programme mais pour changement am damay fàttali ne eh, nee na programme ba programme yombul noonu de waaw wala boobu waaw non yombul noonu mais mais mais dama mais mais programme mhm. damay fàttali ne programme ñun bu ñu def dafa jël en compte une expérience sur les trois pouvoirs mm-hmm. tey le pouvoir judiciaire mm-hmm. si biir coalition bi am na ku ko incarné mm-hmm. koo xam ne am na expérience bi muy le juge dem tudd nga ko léegi le pouvoir exécutif si biir coalition bi am na ñu am expérience bi def si liggéey bu mat sag muy Thierno Alassane Sall ancien ministre muy Abdourahmane Diouf direct ancien directeur pouvoir législatif yi mu am ay députés yu sam expérience mm-hmm. muy man Cheikh Oumar Sy Mariam Soda Ndiaye Théodore Monté et cetera mm-hmm. donc programme bu ñu ko def dañ ko tirer ci expérience mm-hmm. teg ko ñu ne aussi programme soo ko tegee il faut mu am ñu ko mën a doxal ñu tegal leen une équipe de compétence et de valeur koo ci jël ku ne parcours am nga xool ko yurndu ko yurnduwaat ko parcours la boo xamante ne intérêt exclusif de population la taxaw am na situation yoo xamante ne mënoon def ni wala mënoon def ne mais gis nañ am na ñoo xam dañoo bàyyi dara pour ñëw si opposition bi mënoon ko dem jëliwaat heure bu leen neexee nag donc loolu soo ko tabaxee nag de mooy population comprendre ne léegi fii la ñu war a jëm mais combat yee mën nañ bàyyi ba lii passé mais malheureusement on n'a pas eu le temps pour pouvoir euh, convaincre les gens. Mhm. et que ce n'était pas trop lourd sur la balance. mais nag da ngeen amul base politique nag. moo tax non mooy mooy ñi ngeen tànn ñëpp coalition Aar Sénégal. amuñu amuñu amuñu base politique non man il faut ko fi. amuñu base politique waaw ba pare campagne bi ki ngeen tànn moo seen leader def campagne. buy dem mën a koy jaale ji ko mais bëggoon naa yooyu aussi non bàyyil tooñ ma non Thierno bu ngeen campagne aussi waaw ñëw ñëwal ñëwal Salma rapidement <laughs> mais il faut aussi nga wax mu wax war na war na laal foofu aussi est-ce que coup ah. yi nga xamante ni vers la fin de la campagne Ousmane Sonko rëxal na leen ko aussi est-ce que ça n'a pas été un peu fatal pour vous. alors euh, ma ñëw si mars <laughs> d'abord parce que damay fàtte <laughs> alors hmm. euh, xam nga xam nga tey soo jëlee yenn communes yi. Hmm. am na ñoo xamante ne ne pendant cinq ans presque ñu ngi liggéey pour nekk maire. chaque jour ñu ngi dem si localité ñu ngi dem si ngénte yi dem si takk yi. Hmm. dem si dëj yi. di dem si conférence yi di wax ak nit ñi def porte à porte xam nga ñooñ dooñu ne amuñu baas parce que ñu ngi waxtaan ñu ngi def tout pour en tout cas mobiliser une base. mais ba élection yi ñëwee di ku ñu ku fa nekk maire dañ ko tabb ci benn dynamique mu ñëw fël la ñoom ñëpp ñu daldi fële. te kooku doone am na base. absolument xam nga kooku amul base. parce que kooku ñu kenn xamul sax. mënul am base mais c'est boo cas des Parcelles Assainies. c'est le de communes beaucoup alors donc c'est pour dire rek ne. foofu problème base ñëwul problème de dynamique la. xam nga dynamique bi man dama bokk non man dama bokkoon si ñu ko xamoon depuis longtemps bu leen fàtte sama sortie bu ma njëkkoon def pour fustiger nu ñu créer coalition ñu bëggee créer coalition boobu créé créé guñ ko. Mm-hmm. j'avais parce que ñu ñëpp dañ d'accordoon ne y avait un vent de sanction te ne Macky Sall nit ñi bëggatuñu mu toog fii Mais en démocratie, la sanction, sa se matérialise à travers le vote de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à travers un bulletin. Bulletin de sanction amul. Mhm. donc dama bëgg a ne kii bulletin bi laay teg pour sanctionner ko déedéet da ngay dem votel Gomis pour Gomis mën a daan kële donte sa parfois mun nga bañ a ànd ak man la ñuy woowee vote utile. vote utile donc le vote ma daaneel foofu rek le vote utile. Mhm. moo doon am solo ci mbir mi. moo tax ñun xamoon ne man par exemple je l'avais mënu pré waxoon naa ko bu yàgg mhm. que ne bu njëkk a jug dans le cadre ne mooy opposition dynamique boobu dina dina dina dina am le vote. mais là je vous comprends pas il faut nga may ma aussi parce que temps bi jeex na il faut ñëw si cadre Ousmane Sonko yi est <laughs> moo tax xëy na Sénégal yu bëri sanctionné leen parce que daf ne da ngeen pour le président rapidement ñu daan non non loolu loolu du ma si du ma si sori parce que loolu d'abord euh, sénégalais yi léegi xam nañ ne loolu sos la woon. waaw mais na il faut le dire sos moom sos la rek. non mais plus forest lañ demee. sachant que ñoom seen coalition ay déjà nañ taxaw si loolu. Mhm. sos moo warul si njiit. d'accord njiit warul sos. Mhm. kon yow da nga xalaat ni Ousmane Sonko. comprendre li mu wax ay mhm. sos la. non mais da ngay xalaat sénégalais mën nañ gis ne ne. man cee bokk moo jàkkaarloog man. waaw non ay sos la. non c'est clair c'est évident moom si boppam ba mu koy wax xam na ne mu ngi sos. c'est clair. <laughs> mais yaa leen njëkk a jiñ baara loolu amul xam nga gis nga. mais est-ce que Ousmane Sonko kenn du justifier waaw baal baal ma ñëw fa baal ma ñëw fa kenn du justifier. Mhm. ay sos par loo xamante ne amul ji nga ñun ba ñu ba mbirum liste yi ame mhm. dafa am maam ñenn ñoo xam dañu bokk société civile bi dañu commencé woon yéen ñëpp gis ngeen ko. Mhm. ne. dañu war a sax reporter élection yi wala nañu valider list yëpp et cetera am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne aborder nañu mm-hmm. ñu ne leen mais loolu dafay mel ni dañuy def baara yëgoo mm-hmm. wala combine bëri sur le dos de la loi donc ñun on a dit pas de baara yëgoo pas de combine bëri mm-hmm. on est on n'a jamais accusé qui que ce soit si loolu musul am tuddul Aar Sénégal aussi non bëgguma ñu sori si loolu. parce que moi je personnalise pas. non Ousmane Sonko aussi tuddul Aar Sénégal. Euh, ma ne. waaw mën na nekk. ma ne maas léegi ñu bàyyi Thierno dem parce que dañu war a dem. maas dafa wax opposition dafa ne ñeneen ñi. kon ñoom ñëpp la lu dem les propos étaient très clairs. Ah. je pense que loolu jarul il faut pas être plus royaliste que le alors donc euh, loolu loolu dépassé nañ ko. mais aujourd'hui su ma tontoo léegi si si si maas lu mu wax. ay ñi mm-hmm. nga dafa ay éléments de langage yoo xam ne amul sens. Mm-hmm. su dee ñun la ñuy sosal ñun la ñuy attaqué après ñuy wëlbati ne ñun ñooy opposition de l' opposition ça pose problème. Mm-hmm. ça pose problème. Mm-hmm. est ce que c' un crime d' avoir des ambitions en dehors des ambitions des autres est ce que c' est un crime. dans un pays. nga ne ñii nii la ñu xalaatee def nañu seen équipe. Mm-hmm. ñun nii la ñu xalaatee def nañu suñu équipe. mais demal dans tous les pays du monde. c' est la démocratie. il faut ñu am une culture démocratique. mbir mi euh, am na kenn ku mu ne euh, kii ak kële kii ak kee ma ne ko da nga siy yokk kële <laughs> kii kee ak kële waaw parce que lépp ñëpp la non lu tax bokk leen ci intercoalition lu tax bokk leen ci comme comme ñeneen ñi comme wàllu ni mu ci bokkee non non xam nga xam nga loolu moom laa la wax sànq c'est-à-dire que comme ça mu doon benn say quoi benn say non Hmm. mais benn benn benn say mais yéen seen bopp gis ngeen. non damay laaj lan mooy seen différence question autrement posée lan mooy seen différence entre yéen ñii. no xam xam man ak ak ak waa ak waa Yewwi loolu sénégalais yi ñoo ko mën a wax. man man laaj laajee lan ah. moo tax. non waa xaaral ma ñëw Aliou c'est-à-dire que moi je fais pas d'étude comparative xam nga man li ma xam man li ma doon. sa différence ak yéen yéen lan. non déggoo lu ma la wax. c'est-à-dire man maa dégg sa question. bañ ton sa question. ah c'est-à-dire que man maa nekkul dans une logique. de comparaison. non c'est pour xam rek. non Sénégalais ñoo bëgg xam. non non mais nag waxtu wi xaj nañu waxtu wi xaj nañu ah. nga ñu bàyyi ko mu daaneel. parce il faut ñu dem si sport non Mass bàyyi ko rek mu daaneel. Mass loolu ñu baal waaw mais foofu. mooy nga dimbali ma li ma wax rek mooy Aliou Sow li ma c'est important. Mhm. maanaam yéen kàngam ñu tund yéen aar Sénégal ñëpp dañ leen xaaroon assemblée nationale parce que ay kàngam ngeen ci réew mi yoo mm-hmm. xam nañ ko mais lu tax tey xam ngeen ne amoo leen base politique mm-hmm. mënoo leen dem gagné te mënoo leen ñëw dooleel yeewi ngeen nekk non bu ñu wax mënuñu dem gagné xam nga non maas il mm-hmm. ah, mënoo wax ne ne mënu leen ba ñuy dem ñun dañuy dem pour gagné cest à que tey wax naa la ko encore une fois am na ñoo xam ne gagné nañu kenn xamu leen donc mbir mi du question de base base ci xel yi la nekk mm. cest à que ku ñu voteloon Macky président Macky Sall 2012 ñenn commencé di ko di wëlbati contre moom entre si basam lañ bokkoon wala bokku ñëwoon si basam mm-hmm. te pour xel yi ñoo walbatiku donc base si xel yi la xel yi ngay waxal su dee xel yi d'accord nañu rek dañuy ànd ak yow mais encore une fois man je veux bien quand on me pose une nga xool la faisabilité mm-hmm. yow sa bopp gis nga ne waxuma la intercoalition yeewi wàllu de mm-hmm. mais yow sa bopp gis nga ne même au sein de yeewi bañ defee seen liste ba pare am na ñu génn ne waroon nañu nekk fii waroon nañu nekk fee mu am xuloo ak xeex seen biir waa léegi est-ce que ñëpp mën nañu nekk si benn liste jaaree mënul nekk. kon yéen yooyu ngeen doon moytu. non non non du question yooyu lañ doon moytu sax mais ñun dañoo dajaloo waxtaan. ni nii la ñu bëgg a demee assemblée nationale lii mooy suñu contrat de législature nii la ñu jàpp ne moom la ñu war a doxalee mais ab population yi ñooy apprécier mais du ma nekk Aliou di di wax ne man sama différence ak Aliou lii la su boobaa dee am sax lu muy nuru yow ñeneen ñi ñoo mën a ay opposant ngeen da ngeen nekk ay opposant kay rek au régime actuel te da ngeen bëgg une majorité éventuellement à l'assemblée nationale waroon ngeen mën a def benn say quand même à l'intérieur ci biir benn ci biir yeewi askan wi wala intercoalition bi yeewi wàllu pour que euh, justement ngeen gën a mën a am doole. Mm. ndax mën a am une majorité à l'Assemblée nationale loolu mënul nekk parce que encore une fois même biir Yewwi bi nga xamante ne defar nañu seen liste. Mm-hmm. Euh, leader yi fa nekk yow nga ràññee leen man ma ràññee leen ñu ñëpp jàpp ne war nañu dem biir assemblée national position nañ leen position yoo xamante ne ne mënuñu dem duñu mën a bokk parce que liste góor jigéen la góor jigéen am fu mu donc ñëpp mënuñoo bokk ci même benn dynamique mënul nekk ensuite en démocratie nit mën na proposer dara keneen proposer dara parce que fii ñu toll l'enjeu c'est quoi l'enjeu mooy ñu dem vers de vrais changements. Mm parce que gis nga le troisième mandat de de kii et tout ça parce que yaa ngi koy wax léegi affaire opposition bi. Mhm. mais y a des questions liées au troisième mandat y a des questions liées à l'état de droit à la démocratie et cetera mais opposition mu si parce que des questions de principe. Mhm. mais quand il s'agit maintenant de dire dañu war a dem élection. kii mun a taxawee ne man nii laa xalaat kii taxawee ne nii laa xalaat. li am solo mooy suñu dajee biir assemblée nationale képp ku ne. ku joxe woon ay promesse par rapport li nga war a def ak askan bi nga respecté promesse yooyu. d' euh, mel ni nekkoon na lu am solo ah, mais nag waxtu wi fu jotee euh, Thierno faaw ñu xool ji ñi nga xamante ñoo di sponsor yi parce que ñoo ñuy gunge ah. parfaitement di ñuy euh, gunge tout au long de cette émission ba lépp daal di yemb donc dañ leen di dem xooli rek